mbokki internet yi jeer ngeen jëf public SNTV yeen nga xamni sa su nek yeen ngi euh, top suñu ay programme wala bok suñu ay information suñu ay xibaar euh, tay nak xam nañ ni mo di amagal euh, Touba li ñi gëna ragneeku nak ci yoon wi mo 11 mort manam euh fuk ak ben accident bi amon ci yoonu Touba ku ci gëna ragneeku nak mo di brise de mer mu nekkon bër nekkon bër aussi bu siw lool tay mo dal ñak bakanam fofu ci xana aussi mo ci magal Touba bi mom nak dal leen ko jël dal ko jey yobbu fi xam ne di morgu euh, hôpital principal de Dakar moom nak ak euh, ñi nga xam ne aussi euh, ñoo daal di ànd daal di ñàkk seen bakkal ci wàll bi ci màggal tuuba bi yi mokk internet nak, wooy leen nag seetaan déglu seen ay programme public agent TV ngir ngeen jëf di leen ñaan aussi màggalu jàmm.